waa asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum Sénégal yéen ñi nga xam ne yéen stan El Vision Média ñu ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne tey dañoo indi benn thème tem bu am solo muy leen taxaw seetlu taxaw seetlu nag mooy boo ko déggee mooy li nga xamante ne mooy xew ci jamono fu mu ne ni lëmbee diggante góor ñi ak jigéen ñi ñuy xool fóot bi ci kan la ñu dalal ci nag ndaanaan bu mag animateur nekk koo xam ne borom Walf kenn doot ko présenté àdduna ñëpp ko xam mu tudd Samba Samba ñu ngi lay nuyu maa ngi lay fay di kontaan bu baax ci invitation bi ak solo bi nga xamante ni tey ñu war taxaw seetlu ci lu bëri di nuyu rek mbokk téléspectateurs yi ngay seetaan ci internet bi. Mm-hmm. plus particulièrement ñi nga xamante ne ñoo ñu seetaan ci Elvision di la nuyu bu baax di nuyu équipe Elvision bi yëpp waaw. waa ba tey Samba ñu ngi lay dalal tey ci émission bi nga xamante ne mooy taxaw seetlu taxaw seetlu nag boo ko déggee mooy li nga xamante ne fi mu ne moo lëmbe jamono jigéen ñi nga xam ne ñooy soode seen jëkkër yi ñi dee leen lakk gis-gis nga ci am. waaw gis-gis bi ma ci am mooy que li ngeen def rek li ngeen def rek presque ñun boo xoolee loolu rek lañ ci seetlu ndax fiñ toll nii moom képp kuy jigéen rek yaakaar naa am nga gàcce ndax yéen da ngeen a sikk te mu leen jox nit ki cëram mu leen jox nit ki wàttuwaayam gis nga jëkkër nawle la bu la yàlla boolee ki ngay sëyal da nga ko war a tarbiya ba keroog ngay dee mais waxuñu la nga rey ko di ko soodeeg lu kenn xam mais lan moo tax yow nga jël tor bi rek bëgg ñu ko teg ñun jigéen waaw lu tax ba leen ko teg yéen jigéen parce que yéen jigéen yéen a def yéen a def seen bu réwee à chaque fois loolu jigéen soode na jigéen jam na paaka jigéen nangam na jigéen nangam na loolu rek fi gis. mais lan moo tax jigéen jam na paakare wala jigéen soode na te yow pourquoi lan moo tax doo gëstu cause bi tax jigéen def loolu parce que jigéen tamit xam nga olof Ndiaye day faral di wax naan ni weenam sëggee noonu la xelam sëggee est ce tamit li ko ko góor ki def ba mu jaral ko moom xolam tàng ba mu def ko loolu est ce que yow gëstu nga loolu. ni weelam sa xelam seene ma bañ de lolou non bu ngeen demee ba jàq rek ngeen ko jël utiliser ko teg ko waaye am na foo xam ne bu ñu fa àggee du ngeen ko fa teg yéen kenn mënu leen nax ci xaalis bu ngeen bëggee sañse di ngeen am seen feem yu ngeen def ba ni kanam sañse kon seen benn xel sëgul seen benn ween sëgul mais da mais dañoo war a sañse sa parce que yéen sañse ñoo tax ñu ngeen xool parce que bu ñu sañse woon du ngeen ñu xool sañse moo tax li ñuy def yëpp pour yéen la mais imagineel tey nga nekk ak sa borom kër nga muñal ko lu nekk si àdduna nga defal ko lu nekk ba dara dara nga taxaw yéen ñaar nga taxaw nekk léppam taxaw si ginnaawam couvrir ko defal ko lépp mu xëy un bon am tuuti rek dem takk ñaareel jël ko nag teg ko sa ko est loolu neex na si xol. après da na mais dagan na mais na ngeen koy defee moo ñaaw parce que da ngeen ciy boole fen yu rëy. ñaaw takk ko jëlee lu ñaaw. bañ ngeen ko sax léegi takk suuf ngeen xewal lu ne ngeen di def lu ne takk suuf jël xale bu jigéen bi jëlee ko teg ko. a yéen ngeen li ñuy def yéen a bëgg ñu koy def ci suuf xam ngeen dara lu jub kaw waxu leen ci dara dara dara dara bëgg bu ñu fa takk ci suuf rek moom moo mel noonu moo bëgg ko takk ci suuf. non non Samba d' ma d' accord ma sa parce sa parce que moom ki ngeen takk ci suuf du xam ne yéen takk suuf ngeen koy def. moom du ko xam parce que da ngeen di yónni parce que li ngeen xewal moo garaaw da ngeen di loué papa da ngeen di loué nijaay lépp ngeen di def si àdduna monde bi moo toj instant bi nijaay da koy loué mu dem ñaanal leen jabar fii lépp a fi am loué oto def lépp ñëw fen ku jigéen ki fen koo fen a fen ba takku ko boo demee sa aaw doo ko sa ñëw takk nga ñaareel parce que sa amoo fi tam dama eh, bëgg a déglu yéen ñu dàq fen yéen yéen a fi yàq loué nijaay dàq fee loué tonton yéen bu ne ngeen di luwee ngeen di luwee bay luwee ay seeni xarit jël leen def leen ay cousine ak ay umpaañ fu ne ngeen am ay yaay fukki ndey juróom-ñeent ngeen di am am fukki baay ak juróom-ñeent yéen ñu raw fukki woon juróom benn ñun da ngaa mës a kuy dem luwee ci ñëw naan dem di takk yéen di kañ ngeen def loolu ñaata jigéen fi sëy ay jàmbur ñoo leen maye kañ yéen mel noonu yéen jigéen ñi fu ngeen génn ñaata papa ngeen am ba ñëw ba léegi seen morom yi sax papa nga leen di woowee sen morom góor yi ngeen bokkal generation bàyyi nga len doye wooyee yéen ëpp bàyyi kañ nga nan may loué yéen yéenay loué loolu modd la rek c'est parce que modd la comme comme modd yi nu mu xewé feul feulale tay ma xam la mané la sam modd lu ñuy sol la du bàyyi bu ñuy loué loolu la bàyyi leen wax yeen ngeen ya mais daal man lu may bañ moy ngeen jël tor bi yëpp xëpp ko jigeen ñi loolu moom wax deug yalla duma ko mas accepter duma ko nangu sik bi yëpp si yeen la nekk parce que jigeen amul xel tamit wala lu ay di jambat yeen la xam yeen tubaar fakala macha allah yéen daf leena may mais li leen yàlla may ngeen di utiliser ci ay termes yu baax ci anam yu bon rek ngeen koy utiliser xooluma dem boo Ndiaye rek li li li ne weng jàpp sa jëkkër boyal taal may wax nag am ñoo xamante ne dañoo taxaw manifester fu ñu toll ni naan fi ko fee takk ñaar ñu taal la ma <laughs> ne balaa nga maa taal ma boyal la man nga boy Samba wax dëgg yàlla xam naa ni moom instant bi da nga jël toor bi yëpp teg ñu ko mais man du ma ko accepté. parce que jigéen à chaque fois comme nu ma la ko waxee rek yéen yéen nañu war a mottali mais jigéen tamit am na loo xamante ni du ko mën a supporter. que ñun suñu meree déglu rek ma expliqué la ñun suñu mer lépp door la parce que amuñ doole dèjà saaga wala sànni wala def dara loolu la parce na ba nga koy soode loolu moo ko jege est que yow xam nga lan moo tax yow moom mu jékki-jékki soode ko. toor bi ñu amuñu doole parce que ñun jigéen amuñu doole laaj ma lan mooy seen doole lan mooy suñu doole iblis seen iblis mooy seen doole. iblis mooy seen doole parce que yéen yéen yéen a mën a fekk góor gu lewet de lem lembaaral lenk lenkaaral ngeen di ko wax di ko ko jam di ko wax ju bon di ko ko jam di ko ko jam ba mu gonfle ba def njaaxum iblis mooy seen doole ak yéen am doole. yéen nag ak yéen am doole. yéen góor nag yéen lu góor def rek jigéen ko ci poussé. lu góor def jigéen moo ko si poussé te yéen yéen ñuy fekk fi ñu toog toog fi ñu war a toog ñun dañuy toog réglé mais yéen yéenay ñëw jël suñu bopp def wax ñu loo xamante ni nekkul ci yéen yéen li ngeen di wax ak li ngeen di jëfe du sax benn dafa sax utee yow de xamoo koy jëfee ku dul jëfee lu ñul benn loo fi gis mu mel rek jigéen la amatu leen temps wu seen jëkkër yi toggatu leen togg bu baax togg leen togg mu ne wër di fen di dul di dajale rek ak ay natt ngeen fi nekkee sëy normal sax defu leen ko. mais jigéen tamit nag lu leen góor joxul nag ngeen di ngeen ngeen. mais yéen bu fekkente ne bu fekkente ne mënoo leen ñoom moo tali si lépp force suñu bokk nag yéen ay samba àllaan ngeen dèjà yow da ngay yor sa benn 5000 francs au nga jox ko sa jabar ak say doom doo ko defee da ngay jaay joom ba ñaaw yaa ngi jënd connexion di ut koo dajee si Facebook bi ak Snapchat bi yéen yére bu baax nga jënd gis nga li nga sañ seen yi te leen na ma ne bu la ko sa jabar laajoon doo ko jox tamit. la ilaha illallah yow nag loo gis su nekk am na ay li may sol moo ko sama jabar laajee loolu laaj du ma xaar sax mu laaj ma ko parce que jigéen la nga koy teral waaye nag li ma sànq rek da ciy nekk. dafa toolee loolu balaa neex borom nangu jigéen am na nu muy mel da ngay rey sa bopp di melaat sa bopp ngor moom am na xeetu bon a xeetu defante gi mu lay def doo ko bëggale sa dërëm da ngay toog rek ne tekki di ko seetaan. mais loolu du yoon. Ah. parce que jigéen yow yaa ko takk indi ko indi ko sa kër da ko war a defal. Ah. yéen léegi xam nga seen mariage sax lan la un mois la deux semaines léegi sax dama tooleem ba trois mois day bëri. un mois deux semaines nga woon jigéen sa jikko. dèjà li gën a salte mooy li ngeen def da ngeen ñëw ba si bopp koñ bi xool fa xale bu tooy di ko doxaan di ko naqaral isa loolu tamit neex na si xol. mbala nga jékki-jékki mu nga toog ko ba sonn munoo ko am nga fexe takk ko boo ko takkee nag ba nga xam ni mu mel nga commencé génne say jikko loolu yëpp yéen a koy yaa ngi waxal sa bopp non yéen laay waxal yéen yéen kañ ku ne xam na ne contrat yéen a sikk ne xam na ne yéen ñii yéenay signé contrat te contrat bi bu doon sax big ngeen koy bindee dina yéex a effacé wu ba ngeen ko ba crayon ngeen di yor crayon ngeen di bindee bi xam ne bu ngeen amul gom sax seen loxo bi gome ko d'accord ma ak yow parce que sëykat yi ñu ngi sëy ba tey ñi bëgg lu baax ñu ngi bëgg lu baax ba tey loolu weddiwu ma ko góoñ yéen sikk na ko yi ñu ngi sëy ba tey waaw weddiwu ma ne sëykat ñi ngi sëy ba tey waaye ku ku fi nekk sëykat rek da ngay dem xool ndayam ndeyam sëykat la woon mbaa mu bokk ci askan gis nga askan dafa am solo te du ngeen ci bàyyi xel am na ci askan yoo yoo xamante ne boo fa bokkee sa jiw sa yaram day seexlu iñaanee def lu bon d'accord ma ak yow foofu d'accord ma ak yow ne ma lan moo tax lu tax parce que nit a ngi fi nga gis yaayam ñëpp leer na ne kii doomu diw la te yaayam mi ci baar la nekkoon di jaay boppam mais doomam bu génnee ku ko xool du sax sigi xool nit. waaye kooku xamul boppam d'accordu ma ak yow ci loolu te day sëy sëy bu rafet. buy déggoo li ma lax buy day juy xatax <laughs> buy dina jur xatax loolu bul sonal sa bopp. mais daf ci am loo xamante ne nii bu amee rek dangay dellu ca base ba dellu ca source ba da ngay dellu ca fondement ba ci fondement ba rek nga ko mën a lijjantee mënatul lijjanti dara parce que jigéen moom rek kay dem di sëy am ñaari kilifa am kilifaay jëkkëram bi koy tere muy bàyyi di soor tamit ay waajuram waaye bu dee say waajur duñ la ngemb ci lu baax duñ la conseillé lu baax respecté woo leen boo ñëwee nooy respecté ndawi jàmbur ak bàyyi jàmbur ak sa jëkkër mën ta nekk. waaw mais tamit dafa am yaay yoo xamante ne dañoo mérito respect am yaay yoo xamante ne ñoom ñooy jël seen goro toog seen digg bopp isa yaay dégg lu ma la wax parce que am na goro yoo xamante ne tey da ñëw jël leen def leen ndey di bëgg seen bëgg-bëgg mais ñoom du ñu gis loolu dañ lay jël tongal la rek jël sa kaw boobu rek toog fa am na yaay yoo xamante ne ñoom ñoo bëggul ñoom ñoom ñoo bëggul seen doom lu baax parce que am ñoom dañuy wujj ba wujj seen goro loolu lépp a fi am mais daal man toor bi yëpp yéen laa ko teg yéen góor ñi waaw toor bi boo ñu ko tegee ñu delloo la ko rek te dama xam ne li ngay wax lépp waxu nam saxasan la rek ndax toor moom mënoo ñu ko teg ndax ku ne xam ne ne yéen yéen a mel ni ngeen mel yéen a sikk seen sikku bopp bu ngeen réglé woon xam seen bopp xam ne ñaari possibilité ngeen am pour dugg àjjana di ngeen ñu respecté yéen bu ngeen jaamoo yàlla normal dem àjjana bu ngeen amee suñu ngërëm dem àjjana leen tere ngeen def ko bay leen seen jëkkër yeeg seen seen seen seen ñi leen yàlla boo leen ngeen nekkal di leen bundu xatal den def di fi bon di café man de jigéen du kafe ak man boo defee nangam ma nangam kenn du ma chantage boo defee nangam ma nangam comme par exemple war nga takk ñaareel xoo boo takkee ñaareel ma soode la nit la muy café mooy dëgg ci moom man du ma fa xaar nga may soode bala nga maa soode laa naan la usful bol la nga dem sa yoon waa Samba comme que tey waxtaanee nañ li nga xamante ni nii mooy émission bi wax nañ lépp daanaka wax nga comme que nangu nga ni eh, jël nga toor bi teg ko ñu jigéen ñi dama koy daal di accepté mais ba tey solution mun na am ma lay laaj nag solution bi lan ngay digal ñi nga xamante ne mooy sa mbokku góor ñi ak sama mbokku jigéen ñi. waaw li ma leen di digal daal mooy que nañu xam na ne say avant tout jaamu yàlla la te nit ki bu dee da ngay jaamu yàlla war nga xool nan nga koy jaamoo ndax jabar nawle la. jëkkër sang la kenn ku ci nekk soo xamee si obligation problème du am nit da ngay xam la la war nit da ngay xam bu dee yow miy jigéen da ngay xam lan moo la war ak sa jëkkër loo ko warta def ak lan nga ko warta def lan nga ko war a wax ak loo ko warta wax ak lan nga war a def ba xam ne lii moom carrément doo ca dégg lu mu la cay wax loolu yëpp jigéen daf ko war a xam waaye nag maaxal la ñu leen di muur yéen ngi jël seen xel bi def ko feneen te muur dafa am solo xoolal buñ lay muur sàngal sër lan lañ lay wax say fa yàlla na fa am njaboot gu barkeel wax jooju dafa war di des seen di des seen xel te seen xaalisu can yi ñu leen di jox ngir yàlla waru suuli xaalisu can buñ la ko joxe du pour nga jël di ko lekk ko mbaa nga koy séddale say njaay say bàyyi jigéen ñi bu ngeen joxee seen xaalisu can jël leen ko ngeen ko jëlee di ngeen ciy jënd yëre bu weex talla dara bu weex tàll loolu bu ngeen demee ba am problème seen sëy noonu la magi daan def bu ngeen demee seen sëy wala seen jëkkër commencé am problème loolu ngeen di jël sol ko tëdd trois heures du matin jàkkaarloog yàlla suñu borom julli ñaari rakka ñaan ko bu ko defee sa aaju dina faj sa aaju jëkkër dina faju waaye fi ñu toll nii benn jigéen tul jëkkëram yàlla na leen yàlla defal jàmm da ngeen di góorgóorlu bu baax ñoom daal ko góor ñi góor ñi tamit ma leen di dénk nañu yërmande nañu yërëm jigéen ñi parce que fi ñu toll nii jigéen boo fi nekkal te yërëmoo ko ñun góor ñi ñun ñooy sëy man du may du ma taay di ko wax de ñun góor ñi ñooy sëy jigéen ñi sëyatuñu ndax booy xool ki lay def ak ki lay wax chaque jour doo dégg ci doo doo doo doo jug ci ñàkk bañ a def ndax jigéen ñi boo defee boo xoolee ñu def la boo xool ñu def la kon yow yaay muñ te sëy lépp muñ la te góor du am xët-xët lu ñu ñett nga dagg saaga mbaa lu ñu ñett nga dóor jigéen bu nekkee moom da nga koy muñal di ko comprendre ci lu ne ñoom daal ku ne bu ñu muñalee moromam yaakaar naa tey loolu solution dina mën a am ku ne na yërëm moromam ku ne na muñal moromam. te rus famille am ñëw toog di la taaj sëy li ci gën a metti mooy que nga tooñ baaxul bu dee ku góor ki yaa tooñ nekkoo ci yoon ku jigéen ki bu tooñee nekkoo ci yoon ay famille bu ñewee tamit da ngay rus a wax sax lu ngeen jote te jigéen bu baax day muñal jëkkëram am complice jëkkëram dina ko tooñ sax ba ñuy ñëw arrangé ñu ne leen nu mu demee mu camoufler wax ji waxee ko neneen boobu sa jëkkër lu muy def daf di mer rek xam ne carrément kii kat gor la maa jum tey maa def erreur li ma ko def lépp wax ko bu ko nettali woon gàcce am. mais luñ leen joxor njaay tamit xale yu jigéen yi daw woo seen yaay téléphone baa ñu whatsapp ko ko seen yaaya daw ànd ak seen càmmiña ñoo gonfale ñëw ca kër ga ñu xeexew di niiraan loolu amul ñuy nañuy muñalante tey comprendre am na lépp waxtaan la te ñu bàyyi nëbbal beeg ndes man lu dul dem li nga may gis nii binte lu dul dem man du ma ci dugg man du ma ndës ndësal dara. xam nga kan laay mbés nësal koo xamante ne sekkuma ak yow dara ana man ana yow ñu daje nga def ma dara damay bàyyi mu sedd waaye bu ma yàlla boole yow ngay sama jigéen may may sa càmmiñ rek loo ma def sama diggante ak yow du ma bàyyi détail damay lijjanti lépp ba mu leer parce que damaa bëgg suñu ànd ànd bi jëm kanam ànd yëpp li koy yàq fi ñu toll li koy tax ma xam la ndër ndësal mu def la nga téye defaat la nga téye defaat la nga téye mbaa ñëw nit nettale la dara rek nga gëm ko sans autant que nga laaj kooku avem luñ la wax na la diw moko wax wala diw moko def lijeenti ko bam leer bala nga tepp di ak ji kenn parce que nit ñi tamit bàyyatuñu kenn and couple danaan beurit neex ci dugg ci nit ñi di leen jaxase ku ne da ngay muñ digeenti ak jabar Asok chaque fois dañuy wax naan bo ci wax dañ ci wax lu baax wax ci lu rafet parce que mbëggeel bu xasse ba am mo upp doole lepp mbëggeel gu bu xasse ba am bu ñu won woon ans tamit dañuy jubo waye gor su ne warna moytu ñukoy jubale chaque jour te nak ku min sa xulo dala yeb waaw. dëgg la kàddu yi rafet na sant nañ la bu baax gërëm la waa El Vision Médias defe naa li ñu fi waxtaan yi lépp tey trouvé nañ solution. Mhm. di la wax ne sant nañ la gërëm nañ la di la bàyyi rek nga jox sa dernier mot. waaw sama dernier moom mooy que di ñaanal sénégalais yi yëpp jàmm. ndax ñun Sénégal la ñu am yàlla ñu yàlla defal jàmm di ñaanal kilifa diine yi kilifa aada yi. ak képp koo xamante ne yaa ngi ci lalu hôpital tëdd yàlla na yàlla saafara wéral bopp yi waaw di jégalu bu baax ci yenn yi parfois que ñun dañoo war a wax rek di wax mais lu ñu fex lépp yaakaar naa ay ay ay ay ay message ñuy jàllale rek di ñaanal yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm ci weeru gàmm gu tedd gi nga xamante ni muy weer yenent bi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di ziar suñu mbokku tiijaan yi di ziar murit yi di ziar xaadir ak layaan yeeg yëpp Sénégal daal yàlla fi yàlla def jàmm yéen seen lii yàlla na lal ba faw ngeen bokk ci télévision yi gën a mag ci kattan yàlla incha allah. amiin jërëjëf Samb gërëm nañ la bu baax a baax di gërëm suñu caméraman ñu ngi woon fii tey nag fii ci Sicap Mbao dalaloon fi ndaanaan bu mag muy Samba ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté àdduna émission bi defe naa ne trouvé nañ solution li ñu doon waxtaanee ci anti jigéen ak góor la waaw tension bi nag yéegoon na trop mais alhamdulilah lépp daal wàcc na ci jàmm ak salaam ñu leen di gërëm di leen jox rendez